kulli saarin wa fi safar xamaani ala maahin maal absa wa safar falaahi bi kawni abda rabbi xadimahu ajibun bihi li jaada moonin anin nafar hadiitu anil mawla wa an xayri xalqi alayhi salaama man lu uktu bi safar صلاة وتسليم مع البيس سرمدا على من بي مكسيم الأمن والبشر فراري بالمختار من قبل قاد لي مكوسا وتفسيرا لدى الجن والبشر رقد شكورا بعد همد مقلد لبا أدعو عبدا لربي على من بي لي خاد سبوا بلا كدر فساة خير الخلق أبدت قصائدي وكوني بها عبدا خديما له سهر ربيت ربا لم يكن قط مثله بفضل الذي كوني حبيبا له استهر sociologue anglais bu ñuy wax eh, Stanley Cohen moom dafa xamle ni bu ñuy wax inxiraaf mooy suluk mooy ja eh, nekkin woo xamante ni nit ki da koo def nga xam ne du loo xamante ni nit ñi doon nañ ko xaar nga xam ni eh, taarifaat yi suñ ko jëlee buñ ci sukkandikoo mën nañoo wax laaj ndax ndawi Tuuba yenn ci ndawi Tuuba yi bokk ndax ñoom dañoo jàdd wala jàdduñu waaye dañuy wax ni yenn ci ndawi tuubaakat wax dëgg yàlla jàdd nañ yoon wa ndax yoon wii ñu nekk di ci dox bokkut ak li Sëriñ Tuubaa rëddoon bokkut yoon wi nga xamante ni moom la ndaw yi nga xamante ni bi Sëriñ Tuubaa wootee euh, yoon wan jaaroon ñoom ñi jaaruñu ci te mooy ñi ma tuddoon léegi ci ndaw yooyu nga xamante ni àndoon nañoo ak Sëriñ Tuubaa bi mu woote nga xam ne daal yoon wi ñu jaar bokkut yoon wi ñu xamoon ci ndaw ndawal murit bokkut ak yoon ngeen xamoon ci ndawal ndawit ndaw ndaw Tuuba baax na tamit ñu fàttali nii sëriñ bi muy sëriñ Tuuba radiyallahu anhu moom ci ni mu jàngale ak ni mu xamlee mooy ndaw moom ci gisinam ñë nekkul ci kaw suuf ngir bànneew nekkul ci kaw suuf ngir fo ndawit sëriñ Tuuba ni ko jàppe du ndaw loo xamante nii moom moom boppam li ne wax picc moom boppam fu neex tong waaye ci njàngalem Sëriñ Tuubaa moom bokk ci ñu ni ndaw moom boppam fu ko neex aw fu ko neex lu ko neex def lu ko neex wax waaye ñu xam ni ndawleet nekkul ci doom nekkul ci àdduna bi ngir lekk ak naan ak def lu ko neex wax lu ko neex te du am ay conséquences yoo xam ci da cay juddoo moo Sëriñ Tuubaa teeloon ci mboolem loo xamante ni ndaw mënu koo ñàkk ci dundam gi ngir mu am baaxu àdduna ak àllaaxira lu dul ni Sëriñ Tuubaa moom jox na ko ndaw li ngir mu yóbbaloo ko ci tàggat ko mu am pas-pas bu baax waaye tàggat ko ci wàllu xam-xam ko ci wàllu jikko ay valeur yoo xamante ni boo ko boolee nag mooy may ndaw li mu nekk ndaw loo xamante ni du gis ab safaan di ca tàbbi wala mu di ko jege moo tax boo demee ci téere eh, sëriñ Tuubaa téere xam-xam yi mu rëddal ndaw ñi ay jubluwaay yoo xamante ni day tax ndaw li dundam am nekkul am maanaa nekkul am contenu nekkul am ci lu am njariñ lay doon nga xam ni loolu bu ko ndaw li amut bu amul jubluwaay ci ak ndawam mën naa soppi dundam googu mu nekk ay fo ak caaxaan yoo xamante ni day tax ak nekkam du doon nekk ku am njariñ waaye day yàq ak dundam léegi nag bu ne wax yàquteg euh, ndaw wala yenn ndaw yi ci Touba mazahir yi phénomène yi ndaw yooyu nga xamante ni ñoo nekkoon keno yi yoon wi ñoo nekkoon kenoy Touba nga xam ni ñoo war a nekk euh, sukkandikukaay yoo nga xamante ni yoon wi da ciy sukkandiku ak dëkk bi da ciy sukkandiku ngir mbir yu baree bëri ngir gën a taxawal dëgër euh, wootat Serigne Touba bi waaye ngir gën a taxaw ay taxawaay yoo xamante ni dana amal njariñ dëkku sëriñ Touba yi dana gis ni phénomène yin gis léegi kat mu fees tan mën cee tudd yii ñu ci bëgg a tudd dana gis nii wax dëgg yàlla ak jàdd la te bokk na bi ci njëkk luy wane jàddu ndaw ñi mooy suñu alxames wax ni mooy ñàkk a ndax ndaw yin waxoon léegi yépp dala ko ci sëriñ bi ci boppam waxoon nañ ni dafa teeloon a am formation jàng ci lu matut fanweeri at mu wuutu way juram ca daara ja waaye teel a taalif ay téere yoo xamante ni euh, ba nii may wax a yow ay génération da nga koy jariñoo booba ndaw la woon kon ndaw buñ gisee ay ndaw di daw jàng waxuma sax ñuy jàng di daw mais jàngun carrément muy lu fés ci Tuubaa loolu dañuy wax nii musiba la moo xamante ni waras na cee jóg nga xam ne ndaw yu bëree bëri moom lu nekk doon seen priorité ba mu def jàng bokk na ci tamit phénomène bi ay ndaw yoo xamante ni yu góor ak yu jigéen yoo xamante ni moom day mel ni ndigal yi nga xamante ni moom la sëriñ bi sampe woon dëkkam bii ak ñu ko fi wuutu ñoom day mel ni ci xëtt ndigal yooyu lañu lañu lañu dëkk ci ay ndaw yu góor ak yu jigéen ci saa yu xëyee ña ngay def loo xamante ni bokkut ak war may sëriñ bi mu santaane woon ci dëkkam bii di Touba ba loolu sax gis nga lim mujj jur ñuy sos ay kuréel yoo xamante ni dañuy fexe ba nit ñi tënku ci war ma yooyu nga xamante ni mooy war may dëkk bi te war may dëkk bi dara jiituwu ci fexe ba ndaw li nekk ndaw loo xamante ni day xam yàlla xam yonente bi xam ni sëriñ Touba jàngale ci ni topp yàlla ak yonente bi waaye bokk na ci tamit phénomène boobu ay ndaw yu baree bëri yoom yi dañ leen di gis ñuy jëfandikoo dorog wala yu ni yu ni yu ni demee ci di ko tux di ko jëfandikoo loolu moom ku ne xam na ni lu fees fees ci dëkk bi la loolu dañ ci ñëw waaye tamit jëflante ko bon gi nga xamante ni yenn ndaw yu dañ koy jëflante ak ñoo xamante ni ñoo leen féete kilifa te ku ne xam na ni bokk na ci leen waxoon yoon yi sëriñ bi rëddaloo ndaw yi mu war cee jaar ngi nekk ndaw loom ci ndaw lu amal njariñ diine ji la ndaw lu amal njariñ société bi lay doon nax ju xaral xaaj ni ci sëriñ bi jàngalee ni nit war a jëflante ak moromam ni mu war a jëflante ak ku ko mag ni war a jëflante ak koom ni moom moo ko mag tan gis ci yenn ndaw yi nga xamante ni jëflante bu bon la rawatina ndaw yi nekk ci xareet yi nga xam ni euh, soo leen dee fekk ñuy wax wala na ne doxee ci mbedd mi da xam ni musiba la moo xamante ni warees na cee jug ci yenn saay sax ñuy def loo xamante ni seen bakkan mën na cee xaj wala bakkanu ñeneen mën nañ cee xaj ci ay mal comportement yom ti ni dañ koy am bokk na ci tamit li koy wane mooy xët li ma ko léegi xët war may Tuuba ak bañ a jëfee ndigalul sëriñ bi ginnaaw bu ko joxee ba pare loolu moom ci at yu mujj yi lañ ko commencé gis waaye bi ci gën a doy waar nag te muy ay phénomène yoo xamante nii ci war a gën a jug la mooy am ay mu dem ba nekk xëy na yàqu rek bu njëkk sax daana nekk loom ci nii dana nekk par hasard nii rek a gis xale bu yàqu fii wala xale bu yàqu waaye bu demee ba nekk nag lu organisé wu ñu nekk ay mbooloo ñu leen tudde ay kàkk wala ñu leen tudde ay bërgumaan nga xam ne ñooñu dañu ràññe ci yi ñuy bëgg a wax dañu am ay daje di am yu ni def yoo xamante nii defe naa kilifay dëkk bi war nañ cee jug wala ñu am yu ne naan yoo xamante nii lam leen di yóbbee kenn xamu nu mu ndax ñooñu am na lu ne naan ñu du ko tudde rimb nga xam ne loom ci nii gëstu yu ñu wane na ni ñoom ci bis rimb boobu ñuy naan bis bu àjjuma lañ koy togg te buñ koy toggu dina la ko jox ngay naan soo ko naanee yenn saa nga nekk ko yoo xam ci day tàqaleeg sa sago mu mel ni nit ku jël dorog nga xam ni bu tàqale sagoom mën na koo yóbbe ci mu def na naka surut noonu benn mu lor boppam wala mu lor ab jàmbur wala mu lor loo xamante ni euh, njar ñëpp dañ ko war a jariñoo wuutewul ak rimb bi yan ndaw yi di naan nga xam ni boo ko naanee ngir loola dañ la koy dindi dan dan la koy toggaale ci misaal man su ma ñëwee di naan di naan ci rimb boobu pour mu dañ da dan may defaale dan may toggaaleel ci rimb bi ni bu ma ko naanee pour mu deñ damay naan soow ñii sax li gën a doy waar boo ko naanee ba teqalikook sa sago ci yenn circonstances yi pour loolu deñ dan lay jam wala da ngay naan ndoxu fons am ñoom sax maanaam da ngay ñu baal ma lëkk euh, euh, lexaloog jigéen yëfi dof yoo xamante nii te lii may wax nii léegi doonatul lu na lu làqu dafa bari nekk ay mbooloo te lu te gën a doy waar euh, ñu de ko def ñoom ñooñu dañuy wër ci mbedd yi di wër ci koñ yoo xam ci ni ay jàng dafay am wala sax nga gis leen ñuy yëkkati ay jàng ay zikkaroon ko ma tudd yoo xam ne ci nii xamuñu ko woon ci yoon yi di wax loo xamante ni kenn xamut la ne wax lu mu la ci gën a doy waar nag jataa yeen koy defee danañ jëfandikoo ay paakaaki ki jaafi ñaata nit lan dégg ñoo xamante nii ci jëfandikoo kooku ñuy jëfandikoo loolu ñuy naan mu tàqale kook seen sago ñuy def ay jàng bay daanu ñaata nit lan dégg ñoom di rey nañ ci seen bopp kenn ku nekk ci ñun dégg nga ko wala rey nga sa morom loolu moom man menn man dong li ma ci dégg defe naa su ma ko doon wàññi dana mat fukk bokkut ak nag yi ma déggul koor gee ci mujj aman ah, eh, dem naa ci koo xamante ni ca ñoom la woon ba ma xëyat déggan naa keneen koo xamante ni moom it dañ koo faat te ci yooyu lañuy def ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni dañ koy naan di jëfandikoo ay paaka ak i jaas yi di reyante seen biir man am na benn eh, sarax sama demoon soo xamante ni dañ fa nekk ñoom ñu nekk ca wet ga nekk ay téeméeri téeméer ay ndaw taxaw di leen seetaan ba nit ñi ñu jaar seen biir ñu ne amul lu jekki-jekki paaka yaag jaafee ju nga xam ne mun keroog ñun suñu bakkoon mën nañoo caaxaaj nga xam ne lii ay danger yoo xamante ni mi ngi nekk ci dëkk bi te li ci gën a doy waar du duñu duñu duñu benn duñu ñaar ay téeméeri téeméer lañ ci yenn koñ yi te du doon benn koñ périphérie Touba yépp boo demee wala biir dëkk bi da leen fay fekk nekk ay nit ñoo xamante ni mën nga leen a ràññee ci seen comportement ci ni ni doxee ni ne waxee ak na ni jëfee nit ñi di leen gis mel ni dara xewut te da ci gën a doy waar lii tamit am na ay nit ñu topp ñoo xam ne nii sëriñ yoo am ji nii am na ci moom ji nii mi ngi ci ginnaaw mbàkke gi loolu ñu naan moo leen ko jox di leen ko jaay cinq mille ñun rek ko ñun dëkk wala dangay gis ay xale yoom am ci nii li ci gën a doy waar ñoom bu ñu bu ñu bu ñu ko naanee bay jayee mel ni ay ay yëkk di jaayu xale yu ndaw yi danga leen di gis ñu di leen seetaan di leen ba ñoom di leen xañ na du naan ñoom la naan waa da leen gis xale yu ndaw yoom ci ni ay juróom-ñetti at fukki at ñoom it di leen toppandoo jël dara naan ko di di mel ne kuy say di di di di def yëfi dof yoo xamante ni dañ leen cay toppandoo xale yooyu nag dañoo wax ni bis bu màggee ci dëkk bi loolu moom mën nañoo xaar yeneen yeneen mbir yu yéeme ci dëkk bii di Touba yoo xamante day safaanook taxawaay yoo xamante ni ndaw yéen wax léegi ci ndaw yi murid ji amoon nañ ko waaye tamit dana def loo xamante nii dana safaanoog li boroom dëkk bi bëggoon kon ñii ñu tuddee ay kàkk ak ay bërgumaan di naan loo xam ne day leen tàqaleeg seen sago di naan loo xamante ni loola pour mu deñ dangay ngay jëfandikoo loo xamante ni am xel sax wërta wërta yóbbee nit ki ci mu jëfandikoo ko charia sax mayul nit ki mu jëfandikoo ko ndax bu nee la yow euh, dangaa daan ngir mu deñ dangay teg sa sa kii nu mu tudd sa tuñ mi ci tuñum jigéen wala nga naan loo xamante ni euh, ndoxum fungos wala ñu jam la loo loolu am xel sax du ko fekki wut waxuma naa nag njàngalem Sëriñ Tuubaa mi nga xamante ni njàngalem ci bé ci lislaam la beneen bi ci gën a doy waar ñoom ñooñu boo demee dañoo bari ci ay gox ci Tuubaa ba ci biir dëkk bi boo dem demee ay ñetti kafteer kër gol lu mel ay sañ ci daaru kër kàbbu ba ci biir dëkk bi yow da ngay nekk ak ñoom di leen xam ñu nekk ñoo xamante ni tamit tax na dëkk yu baree bëri ci Touba insécurité am fa ndaw yi doon wax léegi ci jàdd gun jàdd di jëfandikoo dorog ci ay béréb yu xam nag boo demee fii gaar bu ma am ne man fa dëkk ñaata kirim nga fa dégg xaj na benn kirim moo am benn rey moo fa amoon ba taxoon sëriñ bi joxe ndigal bàyyi faal ñu toj ko mais avant loolu ñun ñu fa dëkk yàgg nañoo dégg ñun fa agressé ak ñun fa ba xañ na ba ca mujj nga xam ne moom li naan moo nekkoon élément déclenchement bi ñu toj marché boobu ne mooy marché gaar bi nga xam ne ñoom fa lañ doon fréquenté di jëfandikoo dorog di tux poon la ci gën a doy waar nag ci jàdd googu ñuy wax léegi quartier yi bari dafa dem ba am insécurité ba nga xam ni quartier yeen doon dégg Dakar sax da ngay dégg ñu koy nuróole ak yenn quartier Touba yi boo demee gaaras daaru nga xam ne buntu Pikine lan koy woowee lu tax mooy insécurité ba fa am agression bëccëg këf téléphone bëccëg këf saag bëccëg yooyu boo demee da koy gis ci yenn koñi Touba yi ray gu bëri gi waxoon naa ko rayante gi ni rayante seen biir wala ñu jox la loo xamante ni rimb wala tul ni la boo ko jam euh, euh, dalay aar boo ko jamoo nangam nangam nga jam ko fa ray sa bopp loolu moom ku xam na ni saa yoo xëyee wala jamono yoo toll doo toog lu yàgg te déggoo ko fii ci dëkk bi bokk ci tamit ñooñu bokk na ci ràññu ko yor ay sareet di ko dawal boo demee fii ci am na koñ yu quartier xam fii ci boori boo ko romee say jëm gaaraaf ay ndaw yoo xam ne yor ay sareet bokk ci ñi may wax wala ñoom ñi ay ndaw yu lan ñoom bu ñu nekkee ci seenu sareet nga dugg ci biir xamoo ko dañuy dawal sareet ba mu yàgg rek. créer coow buñ créer coow noonu sa mbaxloo bi ñu këf si sa saak wala ñu këf si sa téléphone am ñu sax yegg nañ ba mbaam yi ñu yor dañ leen di geesal nit ku gees tàqali ko ak sagoom nga jël bàyyi ma am mbaam geesal ko mu tegu ci ab euh, ab tëli di daw nu ko neexee loolu tey ñaata accident la mën a provoqué accident booba ci ay ndaw yu yàq ray ci seen bopp ray ci ñoo xam ne seen yoon newu ci loolu da koy gis geesal mbaam mbaam mi di daw nu ko neexee nit ku gees sax dafa dafa dafa doy war waxuma laa nga geesal mbaam moo xamante nii day te ko ci euh, tali di daw nu ko neexee kursu kursu kursu mbaam yi man bi ma ci gën a yéem nag route nationale bii man nu yenn saa nga gis convoi mbaam yu bëree bëri ñu nekk ci kaw route nationale bi di daw xel yoo xamante ni mel ni daal dara xewul te loolu mën naa provoquer ay accident ñoom seen jëmmi bopp ñu dee ci rayaale ci ay nit ñoo xamante ni moom wax dëgg yàlla yoon wi jaaruñ si loolu dañ koy gis yeneen gox yi yi nekk ci dëkk bi yéen faa nga gis ñu organiser ay course mbaam beneen bi tamit euh, am na loom ñu commencé naa am ci dëkk bi commencé bëri waxul ni bon na mooy euh, jakarta yi mais toujours affaire jakarta yi buñ koy wax dañ koy lëkkaleeg insécurité ndax bëri na ci yenn ko ñoom ci nii avant jakarta yi dafi bëri lool daana la romb këf sab téléphone wala ñu këf sab saak bu demee ba commencé bari tubaat autorités yi war nañu jël ay mesures yoo xamante nii danañu euh, gunge loolu ba yenn gox yi am ji bëri woon na fa ci réew mi lam doon ànd la ci insécurité ñu teel ko euh, fagaru di euh, ci gën a doyati waa ret yenn ndaw yi li wane jàdd geet nga gis ci ndaw yoo xamante ni moom daanaka xëyun gontun ñoom daal bu ñu tëddee nelaw ba tàkkusaan da nga leen gis ñu def sëq jóor xam na sax xanaa ñi génn di dem di fubale par semaine mais yow bis bu set nga gis sëq ak jóor goo xamante nii dañuy dem mbàkke fubali ñëwaat amuñum xëy amuñum gont ndaw yi nekk ci sareet yi nga xamante nii waxtu woowu ñuy def ci dawal sareet yi waxtu woo ñu ngi ko waroon def ci jàng dale ko ci bon ñu waree jàng alxuraan ñu jàng bu ñu waree jàng école ñu jàng <coughs> waaye waxtu yi nga leen di gis guddeeg bëccëg ci sareet yi nga leen gis bu dee xale yu jigéen yépp ay xale yu jigéen yi ñuy wax pideer kersa amatuñ ci dara bay organiser yoo xamante ni tamit maa ngi koy wax rek xam nga bu ndee ba xamante ni yoo xam ne dañ ko daan dégg ci yeneen dëkk wala sax yeneen réew ñoo ñoo xam loolo muy li ñuy wax ay aînés nga xam ne boo demee indo yi nga xam ne sax seen culture la ñoom ñoo gën a yiw nun koy defee ndax indo yi du ñuy jullit téere wàccul ci ñoom mais ñoom du ñu fecc di di di wane seeni awra te ñoom ñoo keree li ñuy wax ene léegi nag yow ngay def ene di di di di futteeku di def yaramu neen ñu dem ba ni léegi am na ay xale yu jigéen yi tubaab yu koy organisé dañ wax ne loolu mu ëpp na dëkk borom dëkk bi sose wutoon dëkk bi loolu borom dëkk bi sose wutoon dëkk bi ngir ay ndaw yu mel nii nekk fi lii ñu wax léegi léegi nag loolu li ko waral muy li waral ndaw yenn ndaw yi jàdd nga xam ni moo leen di yóbbee ci loo xamante ni alkaande la ñeel seen bopp waaye du ca yem alkande la ñeel seeni famille alkande la ñeel dëkk bi ndëkk alkande la ñeel réew mi ndax ndaw yooyu ñoo war a defar ëllëgi réew mi ak ëllëgi dëkk bi ak ëllëgi yoon wi bokk na ci tamit la ko waral mën nañ ci tudd rek euh, comme Touba day màgg am ñu fi ñëw ñoo xamante ni xamuñu réalité dëkk bi la ca gën a doy waar dañuy indaale des fois ak gox yoom ji nii ñàkk ga dafay bëri te ñàkk googu de fois dana tax maanaam insécurité am waaye instabilité sociale am loolu tamit war nañ koo bàyyi xel ndax ku ne xam na ne ndaw bu deful dara kooku danger public la ndaw la mi dafa toog jàngut liggéeyut am jot kooka moom dansé la ci koñ ba mu dëkk dansé la ci dëkk bu mu dëkk dansé la ci réew mu dëkk moo tax ñu war a teel a bàyyi xel ñàkk gi naka la war a mën a def ba xeex ko waaye ndaw yi ñu teel leen a dugal ci dara ñu war a jàng-jàng ñu wara liggéey liggéey ku war a def dara nga defe ko ñu bañ a am faraax kon ñàkk googu ak nooflaay gu bare googu ku ne xam na ni musiba la lay yóbbee fa talabu raaxati fi daaril xuruur fadixatun yowmal xiyaama yasiir suñ duwaa nee na maanaam bëgg nooflaay ak toog rek yàccaaral loolu nee na euh, gàcceg yowmal xiyaam la gàcce la lay indil gàcce ga nag àllaaxira moo tax sëriñ bi moom it teeloon na xeex bépp formu tayel bépp formu taxawàllu bépp forme boo xamante ni day yóbbee ndaw li mu nekk ndaw loo xam ne day yàq ak dundam ci lu amut njariñ ndax seer goo xamante ni ndaw seer na ko ba sëriñ bi teeloon a xiirtal ndaw ñi ci ñu war a ñu war a jàng-jàng bu ndee ba war a def laneen def laneen naka noonu bokk na ci euh, asbaab yooyu li wax dox ful waase yi xam nga nit ki ndax bëri lu nit di def la koy yóbbe mooy ñàkk a xam waaye comme ndaw yu bari jàngatun ndaw yu bari jàngatun te jàng ko nga jàng mooy tax nga am ay valeur yu nekk ci yow valeur yooyu tamit diine moo koy jàngale te valeur yooyu dana tax boo noree def dara loola tere la ni la kat lii lii ngay bëgg a def kat bu ko def ndax du lu baax maanaam waasix diini boobu ñàkk ci yenn ndaw yi ak sore goom yi soreel nañ ko njàngaleem Sëriñ Tuubaa loolu ku ne xam na ni dugal na ndaw yu baree bari ci Euh, giraawaale gi nga xamante ni dugg nañ ci nga xam ne diine wala yar euh, day tax nit ki am ay valeur yoo xamante ni dana ko tere muy def lu bon ak ay ñaawteef yoo xamante ni da cay loroo lor ci ñeneen waaye yàq ci boppam yàqaale ci société bi loolu ku ne xam na ne bu deñee ci nit nit kooku du nekk ku am euh, njariñ te loolu ko indi rek mooy sore goo xamante ni ndaw ñi sore nañ ko njàngaleem sëriñ bi ndax kenn jàngalu leen ko kenn xamalu leen ko a ah, te ku ne xam na ni Serigne Touba dafa xëroon ci yar ndaw ñi yarub lislaam boo xamante ni day eh, tàggat seen ruu yi ci ñuy jaamu yàlla waaye tàggat ndaw li mu teel a yëg responsabilité ba moom ni ko defee woon ci daanaka eh, lu matul vingt ans mu wuutu way juram ci njàngale moom nga xamante ni way juróom doon na ko jàngale waaye ndaw le teel xam lu dagan ak lu araam lu muy duggi nekk lu leer bañ a tàbbi ci ay subuhaat comme niñ ko gisee ci ay ndaw yoo xamante ni dugg nañ ci ay subuhaat yu bëree bëri yoo xamante ni ko wàccut ak alkaani la leen di e, jural bokk na ci tamit li ko waral mooy li wax faraax maanaam e, am jot toog defoo dara ndax nit ki bu toogee deful dara dana yomb mu sànq waxtoom ci loo xamante ni amul njariñ te ku ne xam na ne ndawi Tuuba bëri na ñoo xamante ni moom faraax dafa bari ci ñoom ndax sëriñ bi waxoon na ndaw li euh, mu teela a ak njub ak xam-xam yaa yo shib yàlla tastaxilu anil hudaa bil ulumi tastaxilu fastaxilu bil hifzi wa tilaawa wa tani wa ma yàlla saxaawa nga xam ni yar ak jàng mooy arme bi nga xamante ni moom la ndaw li mën a gànnaayoo ngir euh, yoon wu sori wi nga xamante ni mi ngi koy dox te muy jàmmaarloog jamono ñaari arme yim mën a jàkkaarloog ñoom rek mooy am yar am xam-xam dana gis na ndaw yu baree bëri ci dëkk bi fii amuñu yar amuñu xam ndax leen koy tax a may newuñu ci seeni waajur yarul leen jàngalul leen te loolu bu ñuy wax ci xulul yi ak asbaab yi di ci gën a doy waar mooy ndaw yooyu ñu wax yépp du ñu ndaw yoom ci nii ci mbedd mi lañu jóge waaye ci biir kër yi lañu jóge ndax nit su demee bay fondé famille war na jubluwaay sama benn xarit dama ci wax ak moom mu wax ma lu xoromu mu ne ma man day day gis ay xale yu bari yoom ci nii day jëfandikoo yu demee noonu nee na ñu ci bari da leen di leen laaj ah yow foo dëkk ñuy la bërëb sàngam euh, sa baay ñu baal ma ñaata soxna la ron ñuy la ñeent nee na mu laajoon ne yow ku ci sa yaay ñu ci bëri danaa ko ñetteel bi wala ñeenteel bi foofu li nga bëgg mooy takk ay soxna yu bëri am ci ay doom te yow amoo benn responsabilité doom yooyu nga teg leen ci yoon siraatal mustaqim loolu dama ni musiba la ndax képp kuy am njaboot yàlla wërsëgal la njaboot mu nekk euh, trésor war sonn ci yar leen jàngal leen bu leen na ku dëkk Touba tamit nga nàmpatal leen ci Serigne Touba bëggoon ci dëkkam bi ak la taxaw mu dëkk bi waaye démissionné totalement ci yarub xale yooyu loolu dañuy wax ni musibam àdduna ak alaxira mënu ko rëy ndax képp ku ko def mooy musiba bi moom danga ko gis fii ci àdduna waaye alaxiraat noo ko noonu danga nga ko da ko gis moo tax Serigne bi moom teeloon a xiirtal ndaw ñi ci ñu teel a wuti xam-xam yaa ma'shara subaadin xiftum xajal fa xaddimu taallaman ala amal ne Sëriñ Tuubaa ne woon ne yéen ndaw ñi bu leen ragalee gàcce na ngeen jiital jàng ci jëf ndaw yi nag léegi jàngatun ba pare la ca gën doy waar la jëfit dafa safaanoog li sëriñ bi jàngale moo tax Sëriñ Tuubaa teeroon a leeral euh, ndaw ni mu seere ak ni ko war a jëfandikoo ak ni ñu war a tabaxe ndaw li ci tabax ko ci xam-xam waa tabax ko ngir mu am ëllëg gu baax nekk wam di day amal njariñ société bi euh, xam nga loolu wax fa kullu man lam yatabaada fii si baaxu ila taalumi waxaaru hawaahu fa xalla an yanaala fii matlaba ifaatahu tasiiruhu waxta sibaa mooy ndaw li su teelut a jug ci ndawam ngir sàkku xam-xam euh, la mu bëgg ëllëg moom dana jafe lool mu mu am ko beneen bi nga xam ne nag dafa waroon a bokk ci liy tax ndaw yi mooy fasaadu biyeetal insaan mooy nit ci environnement bi mu nekk nekk lu bon Touba alhamdulilah bii abi baax na ndax dëkk boo xamante ni dañ faa tere eh, jaay lépp la lay teqale nit ak sagoom dëkk boo xamante ni doo dem gis amaakinu lahwu bërëb yi ni fowe wala yoo xam ne day yàq nit fekkoo ko fi waaye lii nag am na loo xamante ni kii dafay xuma yëguñu ko li wër Touba day mel ni ñoom da leen di bëgg a échapper ba boo demee yan daan def di ko nëbbu yi ci bëree bëree dañ koy def ci fees nga xam ne mën naa yàq bii asaaleha bi nga xamante ni moo amoon Touba ndax yi ma wax ni yu bëri boo demee ci gox yi wër Touba fa nga leen di gën a fekk comme gox yooyu maadaama ne ci Touba lan bokk rek contrôle bi ak euh, autorité kii dafay dëkk bi war a yegg ba foofu ngir bii asaaleha boobu mën a tax. ndaw yi baax ndax ku ne xam na ni wala bal ruub tey bu yaxruju nabaatu bi idni rabbi yi wala si xabu sa laa yaxruju ilaa nakida bu sain bu baax day bokk ci li nga xamante ni day defar nit ki waaye environnement bu fekkente ni baaxut day tax ndaw li gaaw a gaaw a yàq bokk na ci tamit li yàq ndaw yi mooy àndandoo yu bon ndax maanaam li naan bon bu la moom àndal ak ñu bon ndax ñu bëree bëri li leen yóbbee lii bokk ci àndandoo yu bon ndax ma wax léegi mooy da gis ndaw loo xamante ni ndaw yi def yu mel nii euh, ay xale yu ndaw yoo xamante nii xàmmeegun seen loxo ndijoor seen loxo càmmooñ di toppandoo xale yii ñuy tuddee ay bërgumaan di leen roy te bu ñu màggee sax man naam ñu mel ni ñoom loolu dañuy wax ni àndandoo yi bon moom ndax ni ko yonte bi waxee woon rek ci euh, jali su saaleex ak jali su suu maam booy toogandoo ku baax ak toogandoo ku bon mu misaal ko ci mi ngi mel nii ku toogandoo kuy jaay laj koloñ ak ku toogandoo ku ab tëgg boo toogandoo kuy jaay laj koloñ moom laj koloñ bi dana la xeeñ soo toogandoo tëgg bi tamit saxaar si dana la xeeñ kon kuy ànd ak ñu baax maanaam euh, jàpp na ni mën ngaa baax waaye kuy ànd ñu bon jàpp na ni mën ngaa bon euh, te sëriñ bi bàyyi nañu ko xel ci yaayo shib laatu jaay su sax san sa fiyen fara si du jaay su si tubaane woon na yéen ndaw ñi bu leen toogandoo koo xamante ni ab dof la na ngeen toog doog ñu jub te ñii may wax na kat am na ñi sëriñ yoo xamante ni ñoo leen di toggal lii ñuy naan nga xam ne wuutewul ak dorog ndax dorog boo ko jëfandikoo da lay tàqaleeg sa sogo rimb yu ñuy naan it soo ko naanee da lay tàqaleeg sa sogo ba ngay rey sa bopp di loraale ay bakkan te sëriñ bi neewoon nañu gu leen toogoon ñu may dof la ndax ñii saa yoo leen gisee ci seen col ci seen doxin ci seen waxoon duñu soreek ay dof boo demee tamit yàlla bu yàlla defee ba ñoom ñu def la ñuy def ba kenn faatu ja nga dem di seen rob ba moom sa yaram day daw façon daana bu nekk danga ko fa gis façon yëfi dof yu nekk danga ko fa ba laa xadarahu sax yow bu amee ndaw lu koy def ba yàlla def mu faatu ca xaj na du mbokkam yépp ñoo xam ne ci lii la nekkoon bu ñëwee ca rob ba yenn saay gis fa lu mel noonu wax dëgg yàlla gàcc dana ko am ci ni kat ndaw ndaw yu mel nii am nañu ci ci dëkk bi wala sax ndax kii ñu ñëw mu faatu ndax ci ñii la bokkoon ñu loolu mos nañu arrivé waaye dangay gis ni yenn tamit waajur yoo xam yi melu nañ war a mel ndax lii ñu wax damaa jàpp ni ñi njëkk ci responsabilité bi mooy way jur yi ndax waajur wu xam ne mag nga xam li sëriñ bi sance woon dëkk bii xam li mu jàngale loola war nga caa nàmputal sa doom ba du jàdd ndax li yonte bi waxoon ni amul kenn kuy juddu loolu ni day juddu ci fitra maam day juddu waale ak baax benn nag ay waajuram ñoo ko def la mu doon waaye ndaw loo xam ne dafa juddoo fii ci dëkk bii di Touba di dëkk bu sell nga xoole ba sa doom dugg ci loo xamante ni te li ci gën a doy waar ndaw yu bëree bëri loola buñ ci dugg dañ koy boole ci bàmba ji loolu moo ci gën a doy waar ndax boo demee la ñuy def ak la wax lépp ñoom dañuy jàpp ci bàmba ji la te fekk yoo loolu sori na sori na bàmba ji comme ni ñu koy waxee bokk na ci tamit ay ndaw yoo xamante ni euh, li waral jàdd gi ay ndaw yoo xamante ni xaj na am nan xaalis waaye seen baay am nan xaalis waaye xamuñu euh, njariñal xaalis boobu ñu di ko yàq ci loo xamante ni amul njariñ ndax fii yàgg ngaa dégg euh, ay ndaw yoo xamante ni da ngay dégg ñu ni waykat sàngam ma ngay tëgg Mbàkke ñu ne ko fa indi ñu ne ay ndawi Tuuba ndawi Tuuba moom lu ni lan ko war a dëkkale ba mu des woo ay caaxaankat ci fu soriwul euh, Tuuba wala muy Mbàkke gi nga xam ne am na wàccuwaay ci yoonu murit ndax fa la bi feeñee fa la sëriñ bi njëkk a gàmmoo fa la sëriñ bi binde Masaalikul Jinaan nga dafa indi ay ñoo xamante ni tëgg ak fecc ak caaxaan ñooy seen mbir wala ngay ndawi Tuuba yom ci nii foo déggee seen xaalis ñu da ko joxe. ña ngi koy joxe ci loo xamante ni ci majaay sa saxaawa la bokk ci jataay caaxaan yi doo dégg mukk ni jël nañ xaalis ba naam def ko ci yoon wi ngir lu am njariñ yii nag buñ koy wax yenn ndaw yu jàdd yi moo tax ñu di ko wax euh, am ay facteurs yoo xam ne day tax ndaw yi di jàdd yooyu mën nañ ci tudd yu bari ci ay facteur social euh, waxoon nañ ci léegi ñàkk a yittewoo am ci nii waay jur yi léegi ñàkk nañ ko yittewoo famille bi ni fondé wala topp ay àndandoo yu bon wala ñàkk jubluwaay ci famille bi ngay formé ñu bëree bari bu ñu formé famille amul ci benn jubluwaay ñoom daal dañuy takk rek pour takk am ay doom pour am doom amul leen luñ bëgg ci seen famille boobu beneen bi tamit mooy euh, ñàkk gu bari gi loolu xañ na jàpp na ni ci facteur yi la bokk xañ na waxtu wi mu ngi dem beneen bi nag mooy ñàkk xam gi ndax Euh, ñu bëree bëri ci ndaw ñi su ñu def li ñuy def dañ koy dugal ci diine wala ñu topp ñoo xamante ni ñoom maanaam ci turu diine ci turu yoon wi lañ leen di réerale ba di leen def lañ leen di def loo ci jàdd yi ñu waxoon léegi léegi nag loolu pour ñu solutionné ko jàpp naa ni faaw yoon wi ginnaaw boo xamante ni yenn parents yi dañoo sone ci yar bi ñu war a yar xale yi. ñu formé ay kuréel yoo xamante ni yu yu tàggat la ci yarum xale ci bu ñu nekkee ay ndaw ci jéem a def ci ñoom ay jikko yu baax ci jéem a def ci ñoom njàngaleem sëriñ bi ba bu màggee nekk ñoo xamante ni ay ndaw yoo xamante ni dañuy nekk ci dëkk bi ci li nga xamante ni moom la sëriñ bi bëggoon ndax loolu day am boo demee Amérique ay parents ci boppam ngay gis ginnaaw bu seen doom jàddee. ñu jël leen yóbbu leen ci ay kaso yoo xamante ni kasoy xale la ngir ñu yar leen tàggat leen boo ko defee ñu leen fekk ñoom ci moom seen gi dafa yàqu ñu tudd ñu war a tëdd seen giirub dundaat am ñoom sax dañu leen war a rey ñu dugale fa ni la gis nga kii aas bii nga tolloo fi la tolloon lii nga daan def la daan def ba tey jii lu mu ko jural mi ngi nii ñu war koo rey fii weer wala mi ngi nii war a tëdd ci kaso bi giirub dundam kooka tamit dana la yeeni la fexeel ba lii la sa parent di wax nga de ko bàyyi xel ndax man nii nga tolloo ni laa tolloon waaye gis nga fi ma mujj kon jot na nag ñu forme ay kuréel yoo xamante nii xale yi nekk ci mbedd mi di def yi ñuy wax dana leen jël récupérer leen yar leen ginnaaw boo xam ne nag war na nañoo xamal seeni waajur responsabilité bi leen xaar ci ndaw yooyu ba demee tamit mooy def ay planification yoo xamante ni état bi ci boppam da ciy dugal loxoom yooyu wi dugal ci loxoom ngir ñi nga xamante ni moom jàdd nañ pare. waxuma ñu jàddu ñu jàdd ba pare ñu xool naka lañ leen di orienté naka lañ leen di tegaate ci aw yoon ndax kenn ku nekk ci ñooñu ci kër nga jógee kenn ku nekk ci ñooñu fam yu baax nga kenn ku nekk ci ñooñu tamit da ci gën a euh, soo demee ci gaar bi da nga fekk ñoo xamante ni dañuy jëfandikoo dorog di tux ak ñoo xamante ni boo foo leen loo leen tareloo ci alxuraan ñu tare ko leen tareloo ci xasida sëriñ bi ñu tare ko ñooñ tamit damay wax ne waruñu leen a jël rek sànni leen waaye war nañu leen dab dabaatal ba intégré leen ci société bi ngeen nekk ndaw yoo xam te ñu amal njariñ dëkk bi leen ndaw yu amal njariñ yoon ak ndaw yu réew mi bokk na ci tamit mooy euh, jéem a jàngat li nga xamante ni mooy waral jàdd gi ak naka lan koy fegoo loolu tamit ñu te li ci jiitu nag mooy fexe ba gën a dëgëral relation bi war a am ci diggante baay bi ak yaay ji ak doom yi loolu moom ci leen war a gën a bàyyi waat xel la bokk beneen bi tamit mooy te xaj na ci la ni mujje mooy faraax bi nga xam ne dafa am ci yenn ndawi Tuubaa yi taxawàllu gu bari gi nga xam ne saa yu xëyee ñu ngi koy gis loola moom dañoo war a fexe faraax boobu ñu euh, remplir ko ak delloowaat ndaw yi euh, ca bërëbu jàngukaay ya ñi ci war a jàng nañ jël jàngal leen ñi nga xamante ni xañ na romb nañu jàng te yàq woon ba pare nañ leen jël dugal leen ci ay bërëbu liggéeyukaay yi ñuy wax yépp nag daa war a nekk maanaam ala ilmi maanaam xilaafa gi ndax bëri na yoo xamante ni buñ koy wax defe naa lu ci bëree bëri kilifa yi jotuñu ci waa ñu ñi nga xam ne ñoo dëkk ci koñ yi dëkk ci eh, quartier yi sori ci Touba di dund lii di jànkonteeg moom wala ñu dëkkaale ñoom ñun ñoo ko war a yegg kilifa dëkk bi bu ko defee ñu jël ci ay matuwaay te ñu xam ni yoon wi kat du jag lu li mu jage woon ëllëg te yoon wi li ko jagaloon mooy ay ndaw yoo xamante ni dañoo taxawoon euh, ñu yar leen jàngal leen ba bi sëriñ bi wootee euh, ñu ànd ak moom ci liggéey boobu ba indi fi ñu indi yoon wi tey waaye rek bo ñu gisee loolu di yàq loolu waras nañoo taxaw wax ko ba kilifa yi dégg ko ngir indi ci saafara xam naa daal loolu mooy ne xamante ni indi woon nañ ko ngir euh, rek kilifa yi dégg ko ngir mën cee jël ay matuwaay di wax salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam. Eh, waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Oustaz Khat eh, Pakka ñu ngi lay ndokkeel bu baax a baax te di la sant bu baax di la gërëm ci ni nga abordé thème bu am solo bi ak tomb yi nga xam ne indi nga woo bu ngeen xoolee tomb yu mujj yi sax dañ ko xaw a tënk ngir sàmmonte ak waxtu yi. waaye indi na lu ama am solo ci tomb boobu bi ngeen déggee waxtaan wi tem la boo xam ne bu yitteel la ndax wax dëgg yàlla bu ngeen déggee tomb yi nga xamante ni si abordé na ko fépp indi yëpp ci waxtaan wi euh, te ku ne xam na ne bu ñu wax madinatu Touba mooy ab dëkk mooy nit ñi fay dund moo tax ñuy wax kon dëkk bi maanaam maanaam dëkk yi yëpp mi ngi aju ci doomu aadama yi nga xam ne ñoo fiy ñoo fiy dund kon te li mu doon waxtaane léegi muy marxalatu shabab ak jàdd yi nga xamante ni si ndaw ñi jàdd nañ ko ci fii ci rawatina ci dëkk bi loolu lu ama am solo la loo xam ni lu yitteel la te mbokk yëpp war nañ cee bàyyi xel rawatina kilifa yi nga xam ne ñoo jiite dëkk bi ni mu abordé thème bi am na solo lool ndaxte boo xoolee njëkk naa ñëw ci importance bi nga xam ne ndaw am na ko ak sëñ Tuubaa mi nga xam ne moo taxawal lii mu taxawal bi koy taxawal lépp ci ndaw ci jamonoy ndawam la ko taxawal nga xam ne bi muy sanc ay dëkk di taxawal yoonu murit ak di jël ay responsabilité am jamono yooyu mi ngi toll weesuwul fanweeri at weesuwul fanweeri at di jël ay responsabilité ak di taxawal yoonu murit ca déclaration Mbàkke Kajoor ba ca ajjuma jooju loolu lépp di ko sëñ bi def weesuwul at yi nga xam ni moom lañ doon waxtaane euh, taxaw temm nag ci ñun ci boppam ñu war a jël suñu responsabilité xamal nit ñi ni doomu aadama ak wala nit ku ñuul taxuta ñàkk fayda taxuta dellu ginnaaw fa laysa yujibu sawaadul jismi safaatal fata wa su al fahmi fa laysa yujibu sawaad al jismi azam al faw adam al fawzi bi azim al loolu lépp sëñ Tuubaa montré na ko misaal na ko jox ñu ci ay misaal ci ñi nga xam ne ñooy cheikh am yi nga xam ne ñoo ko toppoon maam Cheikh Anta maam Cherno ak sëñ Mbàkke Buso ñoom ñoom ñëpp kenn ku nekk li mu lay responsabiliser ak di la def loolu li mu lay def loolu yëpp jamono yooyu xañ na boo koy dégg léegi bu ñu nettali histoire da yaakaar ni borom juróom-ñaar fukki at ko def wala borom juróom benn fukki at waaye ay boroom ñaar fukki at ak juróom ak borom fanweeri at ñoo doon taxawal lu mel noonu loolu moo tax mu jëloon misaal ci mag ñu baax ñu tedd ñooñu mu ñëw nag ci lu am solo mooy phénomène yi nga xam ne am na léegi ci dëkk bi phénomène yu yoo xamante ni si am na léegi ci dëkk bi te loolu lépp ñu war cee taxaw ndax ëllëgay tax ndax ñu baree bare dañu jàpp ni xam nga am na ñoo xam ne rëcc nañ ba pare maanaam am na ñun ñi nga xam ne suñ classe gi ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo jàng wala am na lu xam wala am na foo xam ne seen xel weesu na ko ñooñu mën ngaa wax ni rëcc nañ mais ñi rëccagut mooy li ñi ñi mu rattrapé mooy suñu doom ak ñi nga xamante ne si ñooy ñëw ëllëg foofu la yàqu-yàqu bi di fe feeñe incha allahu taala mooy ñàkk jàng gi nga xam ni moo am ci yoon murid te ñi war a na occupé ndaw ñi ci jàngal leen ba ñu baree bari jànguñu te suñ Tuubaa waxoon na min makaayidil laa'inil mujrim saddul muridina an taallumi nee na bokk na ci pexe yi ma seytaane deseel mooy lan mooy fexe ba fàbbi sama ndaw ñi ba duñ jàng ñu bëree bëri nag jàng mi joxeetuñ ko importance te jàng mi lu am solo la loo xamante ni si mooy tax nit ki du am faraax bu may yàqoo du am te phénomène yooyu yim ci joxe bëri na lool da gis yoo xam ne day kilifa gi day wax ñu ciy teg baat ak yi ñuy jëfandikoo ci loo xamante ni si ak comportement bu ñaaw bi nga xam ne am na rawatina boo génnee ci maanaam place publique yi ñaari nit ki waxal mu wax loo baat boo xam ni wala mu jëfandikoo kàddu boo xam ni yow boo dee nite sax da ngay da koy da nga da nga koy rusa yenn saa yi sax baal ko wala ci ko da lay gënal nga continuer di wax ak moom ak xotti gi ñu xotti war may dëkk bi ci phénomène yu bëri yooyu ñëwa ñëw na ci duma ci waxaat lu bare bari rawatina nag duñ ci gën a focaliser wu mooy jamaat yooyu nga xam ne léegi dafa am ci biiru yoonu murit ñu koy tudde ay bàmba ji ñenn ñi ne ko tudde ay kàkk ñenn ñi du ay tudde gu bargumaan ñuy def seeni affaire yoo xamante ni soo wax dëgg yàlla dëppoo war mooy dëkk bi loolu kilifa yi war nañ cee bàyyi xel bu baax a baax a baax ndax loolu lépp mooy insécurité bi am te ku ne xam ne ni bu njëkk lu mën a xew moom yam na yoo daan dégg ci yeneen barab waaye du waaw fi dégg moom ay agression diggu bëccëg ak ay këf diggu bëccëg ak yooyu moom daan nga ko dégg feneen de waaye daaw daawul am fii waaye loolu gis nañu léegi am na fi bari na fi lool lool loolu lépp nag borom kilifa yi war nañoo dégg façon waxtaan yi ba mën a taxaw saafara saafara loolu te sa wax na ni juñu ne ci ay sabab yoo xam ne tamit moo ko sabab te loolu ñàkk gu metti mën na mën naa dugg ci biir maanaam ñàkk yarub diine mën naa dugg ci biir ñàkk jàng ak ñàkk jëfandikoo njàngaleem sëñ bi mën naa dugg ci biir ay ay comportement yu bon ak ay àndandoo yu bon tamit mën na dugg ci biir ak yu bëree bëri ak maanaam eh, lesse aller gi nga xam ne moom am ci dëkk bi lu neex waaye def ah loolu ba tey lépp mën naa dugg ci ci biir kon daal ñu xam ni euh, marxala bii ñu doon waxtaane muy marxalatu shabaab marxala bu am solo la boo xam ni léegi waykat ba ala layta euh, shabaabu yahudu yowman fa axbiruhu bi ma faala waykat ba waxoon na ne aka neexoon waxambaane dellu si tey ma wax ko ni li ma li xamante ne si moom la ma bijjaa bi yi shabaab wala waxambaane mooy dund njëlbeenug dundu doomu aadama ci la ak dund di neexe ci lay naqaree ci lay baaxee ci lay yàqoo te shabaab yi ñuy waxtaane ñooy nekk ay doomi ëllëg ñooy nekk góor yàlla yi nga xam ne ñoo war a taxaw ëllëg ñooy nekk bàyyi ëllëg avenir moo tax Cheikhul Xadim lu ne daj na ko ci lu ne def na ko ci kon xam naa du ñu guddal ci ndax am na yeneen programme yoo xam ne dafa war a amaat fii ci daara ji du ñu guddal ci waxtaan wi dañuy xam ne daal wax dëgg yàlla euh, xat fàkk indi na fi junj na fi ay tomb yu bëree bëri ubbi na fi tamit ay brèche yu bëree bëri bëri yoo xamante ne si fàttax na fi ay afaaq yoo xamante ne si dana tax ñu mën a xalaat nag ci avenir dëkk bi dëkk bi fi mu toll nii dafa aje ay assises ci côté yëpp yoo xamante ni si aaja na daal organisation boo xamante ni si war nañ ko ko organiser ndax ëllëgay tax xaj na tey lu baree bare kii na mais ëllëg incha allahu taala buñ ko teelu te artu wala ñu teel ko teelu ëllëg mën nañoo am lu mel xare fii ci dëkk bi te yu mel nii rek moo koy waral kon mbokk yi ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm di sant ñi nga xam ne ñoo teewoon waxtaan yëpp ak lañ na saqaafiya bi ak daara yi nga xamante ni si ñooñu ubbil antenne bi bañ mën a jàllale kàddu yi ngir man koo jariñ jariñe ni lépp lu ciy jub wala lu ciy njariñ yàlla na ko suñu borom nangu te dajaloñ ci ngërëmal sëñ bi suñ te lépp loo xamante ni si ay njuumte lañ ci wax wala loo xam ne dëpp wut ak xalaat nit ñi ñu ngi leen koy jéggalu in uridu ila al islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib kon ñu ngi wàcc foofu suñu kàddu leen tàggu bu beneen yoon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 هديت أن المولى وأن خير خلقي عليه السلام من له أكتب السفر صلاة وتسليم مع البيس سرمدا على من بي مكسيم الأمن والبشر فراري بالمختار من قبل قاد لي مكوسا وتفسيرا لدى الجن والبشر رفعت شكورا بعد همد مقلد لباق ما در الذي هذا غدر صلاة الذي أنوم أبدا لربي على من بي لي خاد سبوا بلا كدر fasaatu xayril xalqi abdat xasaayidi wa kawni bi abdan xadiman lu sahal rabitu rabaam lam yakun qattu misluhu bi fadli lazi kawni habiban lu